mbokk yi dama bëgg ñu ànd ak waa Rési ñu déglu ki nga xamante ni ki mooy Ibou Fall mi nga xam ni moom ak DJ Boubs dañuy def émission foofa ca i télé di def émission muy joxe xalaatam ak gis-gis mais dafa am lu mu wax loo xamante ni bi am naa ci gis-gis beneen bu wuteeg defe naa bi mu ci amee mais ñu njëkk a déglu kàddu yi nga xam ni moom la Ibou Fall yëkkati je vous en yow dafa mel ni déggoo ba Sweet Beauté la waroon lool a dem ba bay bay naan actuellement euh, lan moo ko dese à part saaga ndaw si dara ah, xaawi nañ seen sutura ñoom ñëpp et le pire c'est que les gens se préoccupent de la vie privée de Ousmane Sonko parce qu'elle a décrit tout ça mais moom ci boppam ndaw si je crois qu'elle a envie de dire que lii lañ ko def ak lii les vidéos dont tout le monde parle je suis sûr qu'elle n'est pas dans une posture qu'elle voudrait qu'on dans en public mais elle a tout perdu la fille mais bien sûr sooñ demee ba ñu ba ba nga jàpp ne yow defu dañ la teg comme morso yàpp noonu la fooye mais c'est ce qu'elle a dit léegi nag euh, moom elle a tout perdu elle va tout lui faire perdre man loolu laa gën a gëm ñoom ñaar ñoo ci dañuy mujjee su dee surtout nag à à l'insulter mel ni ku la doon wax tonton tey nga koy saaga. waaw nga xam ne fi nga fi nga nekkoon wàcc nga parce que jusqu'à maintenant pratiquement daaw ko tudd son adversaire c' était Macky Sall c' était le ministre de l' intérieur c' était les magistrats les généraux ak yooyu. léegi fu mu toll mooy di di di daggasanteeg euh, une jeune femme de 21 ans c' triste. et la femme a envoyé benn réplique bu salé. ah loo fa léegi boromam la. et c' est ça qui te fait euh, la chute du bonhomme. Parce qu'il y a deux ans, et même il six mois, euh, bataille. un présidentiable. voilà defe naa ni am na loo xamante ne bi sax dagg na ci euh, topp bàyyi woon mu yeggoon doon na baax torop parce que dafa amoon leneen loo xamante ne bi Ibou Fall wax na ko te loolu euh, doon na ci am solo trop mais amul problème bon ñu continuer ci li nga xam ni mooy mbir mi. Ibou Fall li mu wax dafa jëm ci Ousmane Sonko ak euh, soxna soosu maanaam mu yëkkati ay kàddu wane ni Ousmane Sonko dafa nekkoon ci benn niveau mais dafa wàcc ba ci niveau ki nga xamante ni mooy soxna soosu li tax ma wax ni dafa waroon a yegg parce que dafa am lu mu yeggalee loolu moo taxoon ma bëggoon élément bi yegg parce que doon na gën a neex nit ki nga xam ne mi ngi soog a déglu élément bi déglu ji wax ba cité moo gën may mottali li nga xamante ni bii mooy ay waxam mais leneen li nga xamante ni bii moom la Ibou Fall teg parce que dane euh, mi ngi tudd li nga xamante ni bii je pense que topp bon mayaat ma kii bi parce que fin bi dafa am solo trop parce que loolu moom mooy li nga xamante ni bi moom mooy sababu élément li mu njëkk wax ni yëpp ay kii la mais fin bi mooy li nga xamante ni bi mooy li ci li ci ëpp solo parce que dafa am kàddu goo xamante ni bi daf ko wax ci bi muy jeexal te loolu daf ci am solo trop pour nit ki déggal ko boppam xam ni nekkul kàddu yoo xam ni man maa ko ko yokkal mu xam ni lii mooy li mu wax bu ko defee ñu soog a mën a wax ci waxam parce que bu ñëwut nga wax ay wax yoo xamante ni bi euh, kiiwul kii soog a déglu mën na jàpp ni da nga fabriqué ay waxam bu fekkente ni bi tamit amul kon ñu tëb li nga xam ni mooy euh, élément bi. parce que yow dafa mel ni déggoo ba. suite boote la waroon mës a dem ba ba bay bay naan actuellement. Euh, lan moo ko dese à part saaga ndaw si. dara ah, xaawi nañ seen sutura ñoom ñëpp. et le pire. c'est que les gens se préoccupent de la vie privée de Ousmane Sonko parce qu'elle a décrit tout ça mais moom ci boppam ndaw si. je crois qu'elle a envie de dire que lii lañ ko def ak lii les vidéos dont tout le monde parle là je suis sûr qu'elle n'est pas dans une posture qu'elle voudrait qu'on dans en public mais elle a tout perdu la fille mais bien sûr sooñ demee ba ñu ba ba nga jàpp ne yow defu la teg comme morceau yàpp noonu da ñoom et le pire c'est que les gens se préoccupent justement de de la vie privée de Ousmane Sonko parce qu'elle a décrit tout ça mais moom ci boppam ndaw si tu crois qu'elle a envie que lii lañ ko def ak lii les vidéos dont tout le monde parle je suis sûr qu'elle n'est pas dans une posture qu'elle voudrait qu'on voit dans en public mais elle a tout perdu la fille mais bien sûr sooñ demee ba ñu ba nga jàpp yow defu dañ la teg comme morso yàpp noonu di la fooye mais c'est ce qu'elle a dit ay non léegi nag euh, moom elle a tout perdu elle va tout lui faire perdre man loolu laa gën a gëm ñoom ñaar ñoo ci mu mujjee su dee surtout nag il en arrive à à l'insulter mel ni moroomam. ku la doon wax tonton tey nga koy saaga. waaw nga xam ne fi nga fi nga nekkoon wàcc nga parce que jusqu'à maintenant pratiquement daaw ko tudd son adversaire c'était Macky Sall c'était le ministre de l'Intérieur c'était les magistrats les généraux ak yooyu. léegi fu mu toll mooy di di di daggasanteeg euh, une jeune femme de 21 ans. voilà ñëw na jërëjëf waa moo du ñu ngi am ci yéen mbégte ak kontante parce que dafa am loo xam ne daf ko wax dafa wax ni jusqu'à maintenant daawu ko tudd loolu mooy li nga xamante ni bi moom la Ibou Fall wax daf ne. Ousmane Sonko ba muy wax ba nëgë ni daawu tudd ndaw si da daan wax président Macky Sall magistrat yi ministre de l'intérieur et cetera ñu la doon waxal tey mu daal di koy tudd bon dafa mel ni loolu aussi tamit man dégguma benn yoon fu mu adressé turu ki nga xamante ni ki moom mooy euh, Adji Sarr dégguma ci élément bi son Sonko wax. fan la ci tuddee Adji Sarr maanaam li ma dégg mooy su ma demoon ba nga xamante ni maa ngi def di def lenn li tamit du ma dem ba ci koo xam ni dafa mel ni dàngin bu bu ñu bu bu AVC loolu mooy kàddu yi nga xamante ni bi moom la yëkkati mais ba tey tudd tur après ki dégg ni moom la ak ñi dégg ni diw la maanaam nit ñi ñoom ñoo dégg ni diw la wax walla yow mi nga xamante ni bi yow ci sa jëmmi bopp yow yaa dégg mais ba tey adressé wut li nga xamante ni bi mooy turam mais c'est que technique bi ñoom Ibou Fall di def actuellement man ni ma ko jàngatee mooy dañu bëgg a tuxal mbir mi maanaam créer loo xam ni maanaam dàggasante goo xamante ni kii day am ci entre Ousmane Sonko ak ki nga xamante ni kii moom mooy euh, Adji Sarr loolu mooy li nga xamante ni bi moom la ñu moom la ñu bëgg maanaam mel mi léegi mbir mi nekkatul fële mais léegi sa waay ñëw na ba fii te lépp tout en sachant que ni yëf yi demeewut noonu maanaam li ci lenn lu muy expliquer la woon mu daadee joxe li nga xam ni mooy kii bi mais continuer la nga xamante ni moom la doon mais la mu doon wax loolu yitteelu leen mais li leen yitteel mooy nañ ko enfoncé ci li nga xamante ni bii mooy problème ndaw si pour ñu dem ci cadre euh, li nga xam ni mooy mbir mi maanaam moom sax jële na ni. bu Ousmane Sonko bu daan wax bon boobu da ngay yëg ni ku présidentiable mooy wax mais jamono jooju est-ce que moom nanguloon na ko loolu léegi ci jamono yi léegi bi nga xamante ni bii léegi Ousmane Sonko wax ne ñu bëgg ko enfoncé ci lii léegi ci la ñuy nangu ni li ci ginnaaw nit ku nekkoon koo xam ni auteur bu kawe la te auteur bu kawe boobu accepté wuñu ko woon ci jamono ji nga xamante ni bii euh, ñoom soit disant ñoom. ci jamono ji nga xamante ni bii arrière woon nañ tuuti maanaam procès bi pour ñi xamul euh, jàpp naa ni man ci li ma xam jàpp ko lenn rek mooy jubluwaayu procès bi procès bi du caagi ni kon dam condamné Ousmane Sonko loolu pour man nekkul li nga xam ni moom mooy xalaat bi parce que ci jamono ji nga xamante ni bi yow yaa ngi war a indi débat bi ci li nga xam ni mooy li am solo muy lan muy que ni ki nga xam ni tuumal na góor comme yow mu tuumaal la pendant deux ans wax lu ne pour ay preuve tegut preuve ci taabal ji ñu amee procès bi ba pare commentéeroo loolu ñëwoo di wax ci loolu ak ni nga xamante ne bi mooy li xew muy nangami nit ñi nga xam ni ñàkk nañ seen bakkan si loolu mais waxoo ci loolu mais yaa ngi jëm di wax ci cadre ay détails pour man loolu mooy sunu problème journalistes yi soi-disant aussi tamit ak chroniqueurs yi nga xamante ne bi ñu ngi ci dëkk bi parce que ci li ñu war a wax nga xam ni mooy soxal nit ñi daanaka dañ koy tëb di jéggi mais l'essentiel bi nga xamante ni bi moo soxal sénégalais yitteel leen ñu war cee wax maanaam dañ koy puus na le duñu ci ne parce que mënoo tuumaal doomu aadama ne daf ma tëddee daf ma def ni bañ ñëw ba le jour procès bi génnewoo lenn luy firndeel ni lii nga lii ngay wax kat am na ñeneen ña nga xamante ni bi ñooy témoins yi nga xam ni ñoo fa nekk yëpp weddi la nga xamante ni bi moom nga waxoon daal di ne yëf yi demeewut noonu jëluñu loolu def ko scandale mais ñu nekk ci ay détails loolu mooy li nga xamante ni bi mooy li garaaw parce que am réew bu fekkante ni bi dafa bëgg jëm ca kanam day seet la nga xam ni moo amal njariñ askan wi mu ne ca mais pas di nekk ci ay détails yoo xamante ni bi tey ci lañ ne loolu yëpp nag man damay wax ni euh, buntu boobu Ousmane Sonko moo leen ko ubbil parce que warutoon ñëw ci angle boobu quoi parce que mënoon na nekk ci beneen angle mais tey moo leen may loolu nga xamante ne bii sax ci la ñuy ñëw di ci dugg mais li am solo mooy na nit ñi focus ci li nga xamante ne bii mooy preuve yi nga xamante ne bii moom la ndaw si war a indi loolu nañ ci wax nañ wax ndaw si actuellement lan mooy li nga xamante ni mooy ay taxawaayam ndaw si génn na. yëkkati ay kàddu wax na waxam joo xamante ni bi moom lay wax donc je pense que Ousmane Sonko bon du nekk di tontonte ak ndaw si léegi nag bu fekkente ni bi ñu mel ni ñoom Ibou Fall dañu jàpp ni Ousmane Sonko daf fi nekk di ping pong ak ndaw si wala loolu lañ bëgg a dégloo nit ñi te ñoom ñoo la gën a xam ni doo du du ko tontu mais il faut que ñu jéem a dugal loolu ci bopp nit ñi bu ko defee ñenn ñi jéem a dégg loolu comprendre loolu loolu nag nekk na loo xamante ni bi pour man euh, ay caaxaan la donc na nit ñi gën a focus ci li nga xamante ni bi mooy njariñ ci réew mi procès bu ñëw nit ñi niñ ko doon xaaree mu wasin lii mu wasin janax ji nit ñi ni ñu fi ñu tegoon yëf yi ak li nga xam ni moom lañ ñu doon gëmloo yëpp mbir mi mujj naax saay ci li